AFT TV moo leen di may xikmatul yow mi xikmatul yow mi ak Serigne Saliou Sy AFT TV rahimun qaada lil amaana alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada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 ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci daaray Hikmatul Yawmi nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul te muy ndénkaan yoo xam ne nii kat cheikh Muhammad al Muntaqa afisahullahu waraa nee na bu sañoon jullit yëpp dégg ko rawatina taalibe yi ba man koo jariñoo ndax njariñ la feesee dell dell dell dell te ni ko yéenee boppam la ko yéenee ñëpp moo tax nag ndigalam loolee ak kàddoom goog yi ak yéeneem jooj yi ñun tamit ci la ñuy sukkandiku ngir barkeelu ci jéem koo yaatal ñun tamit jéem koo leeralit sunu kemtulaahi kàttan te duñ ci yokk duñ ci wàññi incha allah ndax dafa wax ne dafa am ku ñëw ci moom andi kayit woo xam ne ni ndénkaanub Serigne tubaa moo ci nekk mu dénkoon ko taalibe yi dénk ko jullit ñëpp ci guddi gim mujjee fanaan jolof ngir war a ñëw njaareem Serigne Touba nag damay wax ne sunu borom dimbala na ko ba la ko waroon moom def na ko ci ñun muy al amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar dégle lu baax ak tereb safaan def na ko te wàcc na ñun kat ñoo wàcc gut te ñun li ñu war na moom mooy imtisaalul awaamir wajtinaabu wajtinaabu nawaahi jëfee ndigal ak bàyyi tere ndax sëriñ bi kat loolee mu ñu doon digal boppam taxut ndax la ma waxoon al cheikh Mouhamadul Muntax Moustapha ak cheikh Mouhamadul euh, ak sëriñ baarañang jaabi lam leen waxoon ne leen a ah, man de samay ndigal togg ku xiif la ku xiif nag bu la toggalee da gaaw lekk ko mbaa ko lu ma leen mas a digal def naa ko ba tàyyi te bu ma leen digalee ba noppi jóg defi ko mosuma leen tere it lu ma mas a def te duma ko mas a def mukk moo tax sañ bay jaxati di wax ne sëriñ bi kan moom wàcc na sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na li moo ko warkat wàcc na mosula mooy mosula fo am na ko ñëwee jébbalu ci ne ko damaa bëgg a jébbalu ci yow mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko wool fere yi mu ña fa nekk ba ñëwee mu ne ko waxaatal la nga waxoon mu ne ko damaa bëgg a jébbalu ci yow sëriñ mi ne ko ana loo jublu mu ne ko xanaa bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko waaw jébbalu de ay wax la rek boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko kon buum gi ñu lëkkalee suñu déggante ak sëriñ Tuubaa kat mooy imtisaalul awaamir wajtinaabu yi mooy jëfee ndigal ak wattandiku ay tere te képp ko yaakaar ne mën ngaa jariñu ci ci Sëriñ Tuubaa te jëfoo ay ndigalam bàyyiwoo ay tereem euh, naxoo Sëriñ Tuubaa naxoo nit ñi waaye sa bopp ngay nax kon nag ndigal lii nga xam ne nii ak ndénkaan yi nga xam ne nii kat ñoroon na ko te muy ndénkaan yu wér yu leer ah nañ koy jéem a gëstu waxtu wu nekk di ci tënku te sëriñ bi fi nekk moom wàcc na ndax kat lépp loo xam ne nii kat lu ñuy jariñ la nëbbaluñu ko bëgg na ñëpp dégg ko ñëpp jot ci ba mën ko jariñoo ndax moom lim yéene eh, boppam muy dund Sëriñ Tuubaa moom la moom la ñu yéene nun ñëpp kon nag nañ ci jéem a góorlu ndénkaane nag gudd na leetar bu gudd la waaye dees na ko def ay dog bu ñu defee tey bu ëllëgee ñu def beneen liñ ci jublu nag moom mooy mu gën a leer ñu gën koo mën a settantal gën koo mën a jafee kon ñoo ngi ñaan sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ku ci jot nga tasaare ko ku ko defee yal na sunu borom dolli ndimbal ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla nga dajeeg ngërëmul Serigne tubaa dañoo wax ne guddi gi Serigne bi mujj fanaan jolof bi mu jullee gee ba noppi dafa woote ba ñëpp ñëw mu ne dikk leen ñu waxtaan ndax dañuy bëgg dellu ci réew ma li ma dese ci liggéey foofee laa koy liggéeyee. yéen ñi ànd ak man coono ya ma fay daj ak lu mu mën di doon ñoo koy bokk daa am lu ma leen di dénk loo xam ne nangeen ko jàpp bala ñoo àgg foofa te bu ñu demee foofa itam na ngeen ko jëfee na ngeen koy jëfee ah, kon nag ku bëgg xam xam ndénkaan ya ak ndigal ya mooy lan nga topp ñu ci suñu xikmab suba incha allah ñoo ngi soññaat mbokki jullit yeeg mbokki taaliba yëpp ci liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant itam ñi bokk ci association bi nga xam ne nii am nañu carte membre tey def seen dara weer wu ne ci daara ji fii liggéey bi toll eh, ñoo ko fi tolloo te ñi ngi ñaan mu weesu ko kon ñoo ngi ci soññ seen bopp di ci soññaat ñëpp te xam ne liggéeyub lislaam la liggéeyub Sëriñ Tuubaa la ndax lépp ci alxuraan la jëm